قديمه عجيب به لي جاد مؤمنا kii moom ma ko joxoon eh, ci benn conférence dañ ma ko jox après bi ma ko ñoree laa gi sax ma ci trop Serigne Babacar Sy Serigne Mountakha ñoo nekk nii ma nekk nii ci kanam loolu dafay symboliser ne benn lañu sëriñ Babacar musula bañ ci lenn ci murid moo moom sëriñ ay xarit lañu ay xarit ci benn bakkan lañu waaw lii du ko du ko bañ kee du ko bañ ñoom ñaar ñépp seen symbole mooy rafet na ci lu rafet rafet na moo rafet ci suñu màggal gi war a demee ah, de lay waral. pourtant gi moom euh, li wax kii rek moo ci ne. màggal gi mooy li may wax tijaan yëpp fay dem murid yëpp fay dem xaadir yëpp fay dem laay ni ñëpp dem. Touba mënuñoo génne kenn parce que ñëpp benn lañu Serigne Touba li mu liggéeyal diini kuy kuy jullit war ngaa mën a dem foofa li mu liggéeyal diini dañ ko woowee ndar dem na yoon wa lu xew muy julli ñaar rakkaat départ ba yegg ndar yeesalul njàpp deful dara ba mu yeggee ndar bañ ko waxee par def ne la ma waxoon de laa wax bu fekkee am na lu ci yokk baa lu ci wàññeeku ci yéen lay doon waaye man ma ci dara li ma waxoon laa wax la ma nekkoon ci laa nekk ñu ne ah doo dellu ginnaaw mu ni duma dellu gi na allahu akbar julli ñu ne ko ci kon mu ñëw ndakaaru ñu ne ko waaw gis nga géej gi mu ne naa jaam bii ñu ne ko géej gi mu ne jaam bii xam nga ni ci nga jëm mu ne ko ah, waaye mu ne jaam bu demee ci mbokk jaam kay kontaan ñu ne ko bateau bi gis nga ko mu ne gis naa ko koy ñu ne ko loo ci xam mu ne bu ma duggee ci eh, seen bateau day ba bu ngeen ma ci dugalee ma dugaay bu dee yéen duma ci dugg ñu ne ko ñoo la ciy dugal la da wax dellu ginnaaw la nga waxoon dara wala ñu wala ñu defal mu ne dama ne lu toll ni virgule du ma ko dellu ginnaaw ñu yeb ko ci bateau bi julli jotee euh, borom bateau bi ne ko ah yaa waxoon ne doo ñu tooñ doo tooñ sa boroom waxtu julli jot na mu ne ko yow kañ nga nekk jullit bay nodd kañ nekk jullit bay nodd ndax nodd mooy xam le ne waxtu jot na noo ko waxee rek noo waxee rek baax na ndax xam le ne waxtu jot na mu ne ko yow kañ nga nekk jullit bay nodd man mii jullit ñu di ma yóbbu man kay xam naa waxtu bu jotee nga xool ñu loolu nag mooy seen problème ñu yàkkamti nañ xool bu xam ne góor gi bi julli jotee mu yëkkat garam ne ko bàcc kaw ndox mi gis nga loolu du dara ñu koy garaawal dañoo garaaw rek xam nga nit bu garaawee day garaaw rek mm-hmm. waaw dañoo garaaw rek mais yow kanaara nga gis ko ci kaw ndox mm-hmm. muy fii nii fii ci kaw ndox man damay dem ndar dem ba ci géej gi ba ci eh, dexu ndar gi may julli tàkkusaan bi ma jullee ba sel ma toog nii di xool géej gi ndox mi ma séen benn kanaara di fay ma ne ci nii la sëñ Tuubaa defoon kay ba muy julli ca deram ba lii la def mm-hmm. waaw parce que nit itam xelam lay tegtaloo mu julli ba sëlmal delloo der bi ci biir dugal tànkam ci biir toog yor kaamila ñu ne ko waw léegi dañu bëggoon ñu wëññeeku mu ne wëññeeku tukki bu yeggul sëri ca ba du mat bi nañ leen dem rek yéen da ngeen da ngeen may sànq yaaj mu ñu ko ñu ne ko sànq léegi nañ bu ñu demee nga toog te liñ la wax nga jël mu ne duma ci dellu mukk bañ demee gaynde giñ ko njëkk a woon wa man takkun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu l usdu fi ajamiata ji yenent bi nee na ya bu sëyri yi nee na képp ku bëgg yenent bi gëm yenent bi boo dajee gaynde gaynde ga day wii loolu loolu jege mukk gaynde ga jébbul ñu xam nag ne kon caaxaan caaxaan luñ ko wan loolu jox ko boppam ñu ne nag kon kii ci lim ne bokkul ci lu ñu ne nañ ko delloo mu ne ah mat na seen seen voyage mat na ñu ne quoi mu ne mat na ñu ne quoi ko mat na mu ne mën a ci leen dem biñ ñëwee ñi mu waxoon yëpp ne leen maa di jullee jullee na leen. Hmm? ñu muy def waaw mu ñëwaat ñu ne ko lañ la waxoon mu ne du ma ci dellu ginnaaw ñu ñu di ko yóbbu rek di ko yóbbu rek ba mu mujj jur la sëriñ bi coono boobu ko sonnal lislaam ti lislaam rek tax kuy ñooñ lislaam war nañ laa soob dama ne coono boobu ko sonna lislaam lislaam rekk tax kuy ñëñ lislaam war nañ laa sopp coono boobu ku ko sonna lislaam te lislaam rekk tax ku ku bëgg lislaam war na laa bëgg man maa wax loolu ak ku bëggul nag yaa xam nit ñi Sénégal moom <laughs> oh, oh, gars yi moom da ngay da ngay oh, nga wax bu jibee dañuy seet la ca ñaaru ñeenu waaw ah, dégg nga li di wax dégg nga di wax rek balaa ñetti fan ñu bàyyi ko indi la nit yi waxaat moom ci wax rek wax nit dafay jël la rafet yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsanahu yàlla nee na booy déglu wax seetal la ca gën a rafet nga jël ko waaye la ca rafet la ca rafet bu ko jël la ca ñaaw waxaale wu ma ko la gën a rafet ngay jël waaw yastami'una al qawla fa yattabi'una ahsanahu loolu alquran wax kon nag yéen ñi déglu yéen a ko yéen a ko moom. هديب به لي جاد مؤمنا النفر هديت عن المولى وأن خير خلقي هلي سلام من لو أكتب